wa aqridu llaha lebal leen yàlla xardan xasana bor bu rafet mooy miskin yi boo amee dimbale leen néew doole yi boo amee dimbale leen ñi ñàkk boo amee dimbale leen yàlla nee na ma dencal la ko ndax bor bu rafet la wallahi di nga saraxe accident nara am nga nar cee bokk yàlla na déedéet diw di ci bokk xam tax am na ci dëkk ba ñu lay xaar di xaar nga ñëw pour nga jox leen ñu toog di la xaar yàlla jaaral seen wërsëg ci yow accident bi da nga ciy mucc lolu moy wa aqridu allah qardan hasana lebal len yàlla bor bu rafet ci jirim ñi ci talibe yi ci miskini ku nek la nga am doo ci joxe yàlla dal neena limu len di xamal sama banque ngi non wa ma tuqaddimu lépp lu ngeen jital li anfusum pour sen bop min khairin ci yiw tajiduhu da ngeen ko fek inda allah fa yàlla mu dencal len ko banku yàlla du dem am fayda banku yàlla toujours day yok yàlla da leen koy dencal xam lu tax huwa lolu khairan mo gën wa aazamate goomu gën a màgg it nag ajran am fay kon nak wastaghfirullah sakulen leen jéggul yàlla yàlla yàlla ñu jéggal ndax inna allaha naka yàlla ghafurun aji jéggale rahimun aji yërëme